suñu teewul suñu loo tey nag li ko waral mooy du ñu di borom bàyyi ma di boroomi fas te am tiis bu dal ci suñu kaw boo xamante ne daf nu metti lool mu di que du ñu am suñu dix-huit fas yoo xamante ne du ñu dee ci ripaas bu bon ripaas boo xamante ne xamuñu fan la ñu jëlee ripaas boobu ripaas boo xamante ne du sax ripaas mën naa ko ne ñaax la rek ñaax ñaax moom la ñu jaay suñuy suñuy sooke soo koy xont suñu fas suñu fas yëpp dee suñu fas yëpp a dee amul boo xamante ne si des na si xoolal jur toll comme nuuru saa tool nga génn nga génn fi dix huit fas te fas bu ci gën a cher bu ci gën a cher bu ci gën a cher bu ci gën yomb trois cent mille bu ci gën yomb bu ci gën yomb trois cent mille la mhm. ci des yëpp un million jëm kaw jëm kaw yi ci dee yëpp un million jëm kaw te li ci gën a garaaw mooy fas yi dee yëpp kër la ñu yore keroog bi fas yi daanoog léegi cin tàkkutul amul kenn koo xamante ne si sa kër say njaboot añ nañu mbaa ñu reer mbaa ñu ndékki waxantuma rek nag mu tombeeg weeru koor ak ñu koor mel xale boo ci gis mu yor fasam ëllëg di daw nii day daw ba dix heures yaayam fekk ko marché récupérer ñetti téeméer wala ñeenti téeméer dem marché moom mu continuer doo ko dawal dépense li fasam lekk ak moom li mu di faj soxlaam ñu ñaan nag autorité bi nga xamante ne ñoo ne ci département bi autorité bi ne ci commune bi autorité bu nekk ci Sénégal yëpp ñuy sàkku ndimbal noonu association borom vétérinaire Tivaouane di leen wax ni leen ni leen jaaxle noonu sonn noonu lott noonu situation bi ni mu demee mooy depuis jeudi alxames bi ñu weesu si la ñu sàmmkat yi nga xam ne ñoo fi nekk tey jëfandikoo fas yi wooñu pour wax ñu benn xibaar boo xam ne naqari na trop mooy dañoo remarqué ne am na ay fas yu bari yoo xam ne ñi ngi dee léegi nag euh, bi loolu amee ñun tamit en tant que service en tant que euh, nguur teg la fi lépp looy def da nga koy jokkoo ak say kilifa ba pare si la ñuy avertir suñuy kilifa biñ leen avertiré ñu ne leen nag il faut que ñu dem sur place pour def constat bi maanaam remarque yi ñu wax biñ demee sur place aussi li ñu wax ñoom mooy liy dëgg ndax euh, premier jour bi alxames bi biñ demee fekk nañ ay fas yu dee yoo xam ne yu bari ñu signalé ñu ak yoo xam ne teg nañ ci suñu bët talaat euh, ajjuma bi tamit mu amaat naka su noonu léegi nag bi loolu amee ñu xam ne xel ne ñun en tant que ndaw boo xam ne élevage moo ñu fi toogal ñun jur gi lañuy saytu ñu gis ne gàllankoor boobu am na wande ci liñ ñu wax ci xibaar yu ñu am ci li ko andi li ko sauvé mooy lekk boo xam ne lekk nañ ko aliment bi teg nañ ci suñu loxo mais li nga xam ne xel ne moo ñu mën a firndeel ne am na lu bonoon ci aliment bi wala aliment bi baaxul loolu gën gaa kawe lañ ko mën a yóbbu donc def nañ ay prélèvement ci jur gi dee def nañ ay prélèvement ci aliment bañ ñu lekk ba tax na yóbbu nañ ko Dakar pour ñu gën ñu ko saytu gën ga saytu nag loolu comme ci weekend bi la tombeel ñun démb lañ ko yóbbu labo à Dakar ñu defal ñu bordereau de réception donc jot nañ ko te fi mu toll ñi ña nga say liggéey liggéey bu jaar yoon bu mucc ayib loolu nag bu ñëwee ñun am na jéego bu ñu def mooy jotagum nañ dugg ci marché bi li ñu gis mu méngoo ak li fas yi lekk jot nañ si ramasser dara mais yoon def ne da ngay def li ngay def mu gën a xóot boo ko defee ba pare si ngay jël say matuwaay yoo xam ne yeneen service yi nga xam ne jotewuñ si woon sax dinañ si bokk muy service yoo xam ne yoon la bu loolu ñëwee ñun dinañ leen woowaat nii ñu taxawee na leen la ñu yóbbu woon lii ak lii ak lii moo ci ne parce que man def naa constat mais constat boo gis day am lu ñuy wax conclusion conclusion boobu mënaguma ko def tant jotuma la dem Dakar